ñoo gën a lam de julbeeri ñooro rey makki doom ji jàll fuuta ñoo del rey nag almaami Abdou Boucar yandak yi ñun ci seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV dellu siwaat nañu di leen nuyu di leen ziyaara am mbégte lool teewaat fii ngir ànd ak ci ñeenteelu xaaj wala ñeenteelu pàcc bi jëm ci sëriñ kokki Njaga Issa ñëwoon nañu ak yéen ci ñetteelu pàcc bi maanaam troisième épisode bi ba li xewoon Mbilor te mooy cong bi nga xamante ni le gouverneur Bourreau cong na ko Sëriñ Kokki Njaga Issa ak Gile Yacine euh, Gile Fatim Thiam Jombos ca Bilor ba ñuy génn ngir dem Dagana ci la ñu jàpp góor yàlla boobu di Gile Fatim Thiam Jombos ñan ñoo ko jàpp ñooñ jëwriñ ma xoor ñu lëkkaloo ak gouverneur Bureau ba ñu ko jàppee waxoon naa leen ni Dakar gu nekk ci Richard Toll foofee fa lañu ko yóbbu ba ñu demee ñu wut buum takk ko ci baatam yéese ko jox pendaison doon nañu sàkku mu weddi boppam ñoom tubaab yi sax dañuy bind wax ni dafa weddi boppam lu jiituñu di ko faat waaye loolu amul ñoom ñoo doon sàkku ci moom mbooloo ma ko wëroon mu xamal leen ni leen li ma doon woote nekkul man du ma kenn ab imposture rek laa woon waaye loolu sunu borom dafa bind ñooñ li bàkku armée bi réew mi mooy mën nañu noo faat waaye kenn duñu toroxal gile Fatim ci am jombos nag loolee la jëfandikoo ba tubaab yi génnee mbooloo ma ngir ñu ñëw seetaan nañu koy faate bëggoon nañu mu weddi boppam waaye ngorom diineem di dini l'islam ci la nekk ba niko ko tubaab yi faat mook ñoom tubaab yi ak ñu andalon ñi ñaan yal nako suñu borom xare aljana ndax yaatal l'islam ci la nekkon don ci def jihad mok serigne kokki njaga isa kon moom bi ñu ko jàppee faat ko sëriñ Kokki Njaga Issa waxoon naa leen ni bro nee na gaañ nañu ko gaañ-gaañ yu metti waaye teewul fit wa tax mu ànd ak ñi desoon ci mbooloom ba jéggi dex walla déeg boobu ñu doon wooyee torow ñoom kokki Euh, ñoom waa Waalo ak tubaab yi doon nañu ko topp moom gouverneur boobu di Buro mi ngi xamle naqar woo xamante ni bii am na ko bi nga xamante ni Sëriñ Kokki Njaga Issa ak gaañu gaañoom yooyu fexe na ba waa Waalo yi ko doon topp gisuñu ko mi ngi wax ni am naa lu ma metti lool ginnaaw li xewoon biloor mooy bi nu songee jullit yi lu gi nga xamante ni bii sëriñ boobu di njaga isa rëcc nañu ko ba gisuñu ko loolu mu ngi ko bindoon ci fukki fan ak juróom ci weeru mars ciatum atum junni ak juroom ñett témèr ak fanwer muy le 15 mars 1930 top gi nga xamanteni bi ñing ñu ngi koy topp Sëriñ Kokki Njaga Isa mom gouverneur bro yonne na bataxal commandant bi nekkoon Gorée ñu don ko wax Alexandre has ci fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mars Juni ak juroom ñetti téeméer ak fanwer le 17 mars 1930 ma ngi koy wax bata xel ba yow commandant bi nga xamante ni yaa yilif Gorée gannaaw yi nga xamante ni yëngu-yëngu yi amoon waalo te ki ko waraloon doon un faux prophète tey faux prophète ba mu ngi ci jublu Ngile Fatim cham Jombas mu ni faux prophète boobu nag dafa àndoon ak sëriñ kokki Njaga Isa di sëriñ bu mag boo xamante ni bii dafa gàddaay woon Kajoor ndax jafe-jafe mi amoon ak dameel ñëw fi nga xamante ni bii mooy te ak mbooloo mu ko gëm te lañ ci jublu mooy nungu waalo bi nga xamante ni réewum barak la ni ko bi ma jotee xibaar yooyu nag nowel yi ci laa dem Richard Toll ànd ak ay soldaar mooy li ma doon wax ci pàcc bay jàll ci épisode bay jàll seen bateau à vapeur yooyu di gaal yi ñuy jaar ci ndox mi moom lañu ñu jëfandikoo mu ni nag bi ma demee maag soldaar yi lu matul ñaari waxtu rek ci lanu bom armée faux prophète boobu nga xamante ni ñetti junni nit lañu woon faux prophète bi nag muy Gile Yacine Thiam nee na ci la tàbbi ci samay loxo maanaam ci la nu ko jàpp dal di koy atte mag kilifa yi wàllu yi mu ni ci biir atte bi sax nangu na ni moom du woon kenn mooy li ma waxoon léegi ni ñoom ñoo ko doon sàkku ci moom waaye musuta weddi boppam mu ni nag weddi boppam googu téewul ñu dal di koy faat biñ ko attee waaye sëriñ ko ki moom gisuñu ko jàppunu ko maa ngi yaakaar ni sax soriwu yow commandant Gorée boobu ndax ndakaaru laa jàpp ni foofee fa jëm mook ñoo ko dese woon kon maa ngi lay digal nga def lépp lu ñutu ko seet ko ba gis ko ba xam fi mu nekk ndax wërta sori rek te bu fekkente ni jàpp nga ko nag ma ko daal di yëgal na mu gaaw na mu gën a gaawee te nga denc ko maanaam tëj ko ba jot samay ndigal loolu moom la gouverneur Bureau wax manam lettre bi mu bind commandant bu Gorée loolu la ko ci wax ñoom tubaab yi nag li ma waxoon léegi ci ni lu jiitu ñuy faat góor yàlla boobu di jillee Fatim am Jombas dural woo ñu ko dural ni weddina boppam ni man duma kenn loolu dafa feeñaat ci sëriñ kokki njaga isa ndax gisuñu ko ñi ngi koy wër dégg nga mu ni commandant gore bi yaakaar naa ni ndakaaru la jëm si waaye fii ma ngay wax ni courrier bi jóge gore wax na ma ni daje na ak sëriñ kokki njaga isa ci luy tollok ñett wala ñenti kilomètre ci dëkk bu ñu wax muy mu ànd ak juróom-ñaari gawar soppi aw turam tudd aliyun gay loolu itam mana maana koo xamante ni gisoo ko bay xalaat ni ma nga jëm ndakaaru nan lay dajeeg say ndaw te yorul mbooloo nga ni juróom-ñaari nit rek la àndal courrier xam booba ay soldat la ko daan indi ay ndaw courrier bi naka la xam naka la xamee ni dafa soppi aw turam tudd Alioune Gaye loolu yëpp ñoom tubaab yi li ñuy bind bàyyi ko ci seen kàggu yi naam danañuy jàng di ñuy bind waaye nag daf ci am loo xamante ni xel nanguwu ko ndax ngir euh, lu mel ni li daloon commandant Prempeh ci jéeri di jéem a layal boppam te teewul sax mujj nañ jële ko fa waaye borom itam nan ngay wëre nit ki say ndaw dajeeg ñoom ba xam ni juróom-ñaari nit la àndal dafa soppi aw turam te jappuñu ko lolu xel daf ko kilifa am yene France mu di len bind faaw mu di ci jema layal bopam waye li xel daf ko nunguwut ndax ma nga ca teg ni mel na ni sax waa Gànjool jóg nañu ngir topp ko te yaakaar naa ni sax du rëcc waa gànjool yooyu yow nee nga courrier bi suñuy ndaw daje nag moom juróom-ñaari nit la àndal dafa soppi aw turam tudd Alioune Gaye ba noppi wañ ñu naan yaakaar naa ni waa gànjool jóg nañu ngir topp ko te du mën a rëcc waa gànjool nee na ndagam yaataluñ ko kajoor moom sëriñ kokki du mën a rëcc ñi koy topp di waa gànjool ndax kajoor amoon na fay jafe-jafe ak ki nga xamante ni bii mooy dammel bi lima yaakaar rek mooy sëriñ ndakaaru bii di Maxtaar Jóob foofe fa jëm kon commandant gore bi buy gëstu ak di seet fan la góor yàlla boobu nekk na bàyyi xel maxtar Diop di grand sëriñ bu ndakaaru ndax yaakaar naa sëriñ bii di sëriñ koki Njaga Issa dem ndakaaru république lébu boobu ba tax na say say gëstu ak ay seet yi nga koy seet na ko jëmale ci grand sëriñu Ndakaaru boobu ma jàpp ni sëriñ kokki dana fa dem ngir mu dalal ko ci ñaar fukki fan ci weeru mars ci il bu Gorée maanaam ci dunub Gorée boobu ma bindat bokku na ci lettre yi nga xamanteni bi 1900 1800 décembre 1831 mo cey wax ni Serigne kokki fexe na ba rëcc na ñi ko doon top gisuñu ko ba fiñ tollu mu ngi Ndakaaru ci kër Serigne Ndakaaru Makhtar Diop. joxe nañu ndigal nag commandant Gorée ngir mu dem jàpp Serigne Koki Ndiaga Issa maanaam na dem laaj ko Makhtar Diop mi nga xamante ni bii mooy Serigne Ndakaaru te dalal ko maanaam commandant Gorée na dem ci Makhtar Diop ni ko Serigne Koki Ndiaga mii nga dalal moom laa bëgg nga jox ma ko waaye mu ni nag ndigal loolu ñu jox commandant bi ngir mu dem ci grand sëriñ de Dakar Makhtar Diop ngir laaj ko sëriñ Kokki mën na indi aw dig tey jafe-jafe ci diggante kilifa ndakaaru googu ak commandant Gorée di Charles Alexandre Hayes moom commandant gore boobu nag ngir jëfe ndigal yi nga xamante ni kilifaam di gouverneur bindoon na ko leetar xamal ko ni ko na dem ci sëriñ Ndakaaru Maxtaar jóop ngir laaj ko sëriñ koki comment naa gore dafa woolu sëriñ ndakaaru maxtaar Diop maanaam jógul dem ca moom waaye def ko woolu bi sëñ maxtaar Diop sëriñ ndakaaru ñëwee mu ni ko daal li ma lay doy mooy sëriñ bi nga fat mu dalal ko laa bëgg nga jox ma ko ci loo xamante ni bii du indi benn jafe-jafe ndax def doon xeex ak sunuy allié ñanu lëkkalool ca waalo ba lakk fa sunu benn comptoir agricole moom laa bëgg nag nga jébbal ma ko bi mu waxee loolu di maktar job ngir mu jébbal ko serigne Kokki mi nga xamanteni ni ay trouble la def walu ay yëngu ku def lolou ci nga xamanteni ni sunuy àndandoo lañ sunuy allié la dañu lekkelo ak nun koku ko fat waroo ko dalal ndax yow sunu xarit nga yow mi nga xamanteni bi ya jité du cap vert yow yaay chefu république lebu ñuy fàttali ni presqu'île du cap vert muy sofos dakar aussi ci kadior la bokkoon damel boobu moo ko jox Ducasse ci atum junni ak juróom benni téeméer ak juróom-ñaar fukk ci la Damel Birame Yacine Boubou dagg lew yi nga xamante ni tey mooy presqu'île du Cap-Vert jébbal ko Ducasse kon ma bab baab dakaru ngir mu genné serigne kokki njaga isa jebel lenko ko ndax ma nga nan ko yow sunu xarit nga ya jiti république lebu ki sunu non la dafa xex ak sunu ñooñ ca walo ba fa kon waroo ko làq dama bëgg nga jébbal ma ko ndax loolu mooy la ko gouverneur sant ni ko na ko def te bu ko joxee mu téye ko bu dëgër denc ko fu wóor ba noppi déglu ay ndigalam wax na loolu sëriñ Maxtaar Diop sëriñ Ndakaaru ndax sëriñ Ndakaaru dana ko jébbal sëriñ Kokki Njaga Isa wala du ko ko jébbal da nuy topp ci juróomeelu xaaj wala cinquième épisode bi jëm ci sëriñ Kokki Njaga Issa ngir xam commandant bu gore sëriñ Ndakaaru fan la ñuy mujj ci li commandant bi di sàkku ci moom ndax dana ko def walla du ko def mbokk yi kon fii lañuy ñuy ñeenteelu xaaj bi di quatrième épisode bi di am mbégte lool di leen nuyu di leen ziyaara yéen yi ngeen xamante ni bii yéenay safoo chaîne bi di Xam Sam Réew TV xanaa di leen soññ rek ñi nga xamante ni abonné ñu dem abonné ci chaîne bi ngir vidéo bu ñu dugal rek ñu mën ko am di leen fàttali ni abonement bi dafa am ñuy laaj ndax dañuy fay wala déet déedéet du ngeen fay dara saa bu ngeen di seetaan benn ci vidéo yi di ngeen gis fu ñu def ab cloche cloche boobe rek ngeen di teg seen baaram fa ñu bind abone daal di ngeen di abonné vidéo bu ñu dugal rek ngeen man koo am kon ñuy ziyaare rek sëriñ Abdou Aziz Touré di xalifa sëriñ Adi Touré ak waa Fass Touré yëpp di ziyaare sëriñ Mountakha Bachir moom Cheikh Mahamadul Mourtada nekk ci États-Unis jaare Serigne Alioune Badara Mbeng ak ñi mu àndal ca États-Unis kuréel googuy jàppale seen chaîne bi ngir euh, jumtuwaay yu mucc ayib ñi ngi leen di nuyu ñoom itam di leen ziara di ziare bokk yi nga xamante ni bii ñooy bégee chaîne bi di leen jox dox daje nag ci juróomeelu xaaj jëm ci Serigne Koki Njaga Issa waaye Faraanse na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal Sénégal ñii génn gàddaay far dem ba faatu ñii joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamuuri cere fi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñi lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën a lam de julbeeri ñooro rey nag ki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami abdu buukar